nga ko dundee rek maanaam affaire waaw xanaa neex ah, mën a demee ah. Macky Sall ah. président Macky ko sa borom fayal la ko sëñ Mountakha waxoon ne ko ko sëñ mi ngay liggéeyal doxal moom mi ngay jëflanteel doxal eh, loolu feeñ na tey lii nii a demee dama ne ku gis lii xam ne ah président liggéey na. sëñ bi barke sëñ Tuubaa. Thank you. sàngara lañ war a jënd naan ko kër gi toj dañuy feetu champagne lañ war a jënd tout est permis deuxième mandat ñaari mandat premier tour. gagnant waa kër APR. Moustapha Seck 100 pour cent. rek ca kaw rek laa bëgg ba nga ko yóbbuwoon na nga ko ma yóbbuwaat na ko ma gis àll dégg li ngay ñëpp ngi ci jot fi mu nekk nii. jeex na rek. man de biir waa ñu ci lu naan. incha allah. Mama di kerawu. Songkok. Songkok. Songkok lah. Yo songkok. Sapu sasu. Kalau kau songkok, apa aja dia lah ya. Kamu kayak jadi. Sama aku aja. Ah, ini. Mana? Kalau bisa kan mereka di kelas, aku mau jauh. Kalau aja bisa, lu tuh kau yang mereka mereka di kelas, kamu kau jauh. Dan mereka amlo, lu mau jaga, lo kau belum, itu lagi di dalam kelas. Wah, ah, kelas gitu.

y'all? What hein? Madame Singh. Mali Ba Sy Diop tegal ñu xew ñu waay ma ngay xew. Yéen sa jël ma interview bi wax jox ko li ma bëgg a wax mooy dama am lu ma dégg loo xam ne dama bëgg ñu bàyyi ko di wax naan murid yi dañoo kontaan waaw Sëriñ Tuubaa nekkul Tuubaa bi Sëriñ Tuubaa bi te mboolem dëkk murid fépp mboolem dëkk moo ko gañe te foo dem ci àddina bi Italie Amérique France diaspora bi Ndar Casamance Tamba Thiès fépp Sëriñ Tuubaa nga ak président Macky Sall murid yi bëgg nañ ko waa kër si bëgg nañ ko te wooteel nañ ko ndax murid yi nekkuñu Touba rek murid ñu nga fépp ñun nag dañuy fekk suñu répertoire bi di ñaanal président Macky mu sedd guy si moom ba mandat bi jeex Touba gi ak département bu Mbacké loolu lañ soxla ñu ne kanam voilà euh, loolu sax ñun nag on est content aujourd'hui parce que Touba amul maanaam problème ak Macky parce que Touba n'a jamais eu de problème avec le président Macky Sall ndax Macky Sall lu la nañ la def Touba dañu koy gunge nag ba 2024 loolu mooy li leer ñun on est des baat bi kenn moom ko nit ku bëgg sa réew kenn jiituwu ci président Macky Sall dafa bëgg réewam raison pour laquelle Sénégal yi mu war ko fal ko massivement aujourd'hui dañ koy gunge jusqu'à électorat murid kenn moomu ko du ma Samba Ba ma Demba. Mhm. murid yi je veux ku ñu contre nga ñàkk. mais Macky Sall yi contre ñu ko ay nit ñoo contre ñu contre il se man sax bañ a nekk ay murid te nekk biir Touba l' ñun waa Touba on est avec lui à 100 amuñu benn réserve bu ñu koy téyal dañuy ànd ak moom ba keroog 2024 te ñu jàpp ni en tant que acteur politique. Mhm. mi ngi ci premier mandat. Mhm. parce que référendum bii fi moo effacé mandat bi suñu premier mandat ci la ñu nekk dem 2024 xool nu ñuy def ba am deuxième mandat pour 2024 jëmale ko 2027. incha allah loolu la mooy suñu bëgg-bëgg ñun. parce que avec vraiment le travail qu'il est en train de mener yaakaar naa tey war ko 10 du mën a ñàkk parce que gis nañ bu baax a baax li muy def fii ba 2029 daal ñu ngi ak moom. mais bëggoon naa nga ma ci assainissement wu Touba naka la ci Macky en fait xam nga président li mu def Touba du lu ñuy lim pour le ci ay baram président il a beaucoup investi bi teew Sénégal bi tey jii bu fekkoon ni maanaam mën naa la da ko xaaj di Touba li mu fi def autoroute yeeg tali yeeg boo duggee kër ñaar deux fois yi ni mu ko defaree yooyu yëpp ñu préparé assainissement ñaari état et tout ci côté mosquée bi yooyu yëpp daf ci def loo xam ne si lu am solo la raison pour laquelle nag la ville sainte de Touba en tant que telle waroon vraiment rendre la monnaie au président mhm. li xew kenn xamul lu mu doon président li mu def Touba def ko ci benn dëkk même à Dakar nga ñuy wax sax defu ko fa investissement yu leer nañ la def kon ñun waa Touba ñoo ko war a mais fay nañ ko parce que Serigne Touba amul lu ak ñaan te lu ñaan yàlla def yàlla na ko mu am ndam yàlla may na ko ndam jeex na di euh, wax santé maam bëggoon naa nga ñëwal ma ci aussi moom bëri na bëri na bëri na bëri na bëri na xam nga santé mhm. defar na fi hôpital 300 euh, lits poste santé yi avec l'appui du maire nga xam na ni chaque année danañ defar ñaari poste de santé mi ngi ñuy tabax ci hôpital man ko jël benn benn sañ boo xam si ne bu mucc gi ah jamono lay doon yëpp daa kon vraiment ñun liñ man lu gunge ko nag luñ ci góobee gàtt